ma ngoog mbokk yi seen émission euh, di ngeen di ci ànd ak Chouaib boog Baye Assane Mesre ak Serigne Abdoul Aziz Diaw aljuma ju jot ci waxtu wi rek ñu ànd ci ak yéen gërëm leen bu baax sant leen am mbégte jàkkaarloo baat ak yéen daañu waxtaanee li nga xam ne moom ngeen di xaar ci jataay bi muy xam-xam bu leer naññ. sëriñ Abdul Aziz Diaw di ko gëstu ci biir ak bitim réew fu mu mën a toll xam-xam bi jaral ko dugg oto jaral ko dox jaral ko sax des fois yéeg ci saretu mbaam des fois sax mu jaral ko yéeg ba avion ngir dem wuti ji bépp xam-xam bu mu jàpp ni su ko indee ci penc mi dina am ñoom ci jariñ moo xam ci wàllu euh, plante yi moo xam ci wàllu xam-xam bi nga xam ne itamit euh, alxuraan moo wax ni daal bàyyiwu ma dara lépp ci biir ñu gërëm leen bu baax sant leen balaa ñoo ñëw ci loolu détaillé ko ñu ànd ceeg Baye Assane Mesere. jërëjëf Sohibou ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare Serigne Abdou Aziz Diaw waaye di ko siyaare moom sëriñ Abdoulahi Ndiaye moom sëriñ Jim Ndiaye ñaanal ko sunu borom gën koo dëgëral di ñaan kii nga xamante ni mooy sëñ Fallou Gumbala mi nekk si xarale gi sunu borom gën koo dëgëral baax a baax waaye di gërëm ñi ànd ak ñoom si commentaire yi ak partage bi ak seetaan bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Mhm. Mm. jërëjëf am na solo Baye Assane Mesre kon ñu door li nga xam ne nag moom mooy waxtaan wi e, balaa loola ñu nuyu sëriñ Abdoul Aziz Diaw réew ñu ñëw ci waxtaan wi. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jagleel nuyoo ba gën a tedd te gën a sell te gën a barke borom Solution TV borom réalisation yu mag yi alaaji Sanjoogu Mbeng noonu la nuyoo bu baax directeur kër gi Serigne Soxaybu Diop di la jox sa wàccuwaay di ñaanal yàlla defal la tawfiq ak taysiir mm-hmm. mm-hmm. noonu la nuyoo bu baax Serigne Fallu zaalika fadlullah yuti manisa wallah sul fadlil adim mm-hmm. mu nekk si réalisation bi di koy ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak taysiir ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan solution ak Walfajri si biir réew mi ak bitim réew noonu la nuyoo bu baax kilifa diine yi suñu ñëwee si si bopp réew mi borom gaal gi El Hadj di ko ñaan yàlla defal ko tawfiq ak mucc. Mm-hmm. noonu la ñu ñëw nag ku yàlla jiital si xoli Sénégalais yi. Mm-hmm. ku ndaw ñi tiitaroo te du leen tiital. waaw yaakaaru Afrique ak Sénégal borom natt yu bëri El Hadj Ousmane di ko ñaan yàlla defal ko tawfiq ak taysiir. Mm-hmm. natt yëpp yàlla defal wëlbati ko mu nekk mbégte bu Sénégalais yi day jëriñoo ndaw ñi di ko jëriñoo réew mi di ko jëriñoo bitim réew di ko jëriñoo. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ko door nag ñu jox leen rek xabaar xam ni mooy am euh, daal fii ak ci kanam. Mm-hmm. ndax xam nga ni sëriñ Abdul Aziz Diaw suba ak jàmm bu àndee ak dogalu borom bi dafa fas yéenee tukki. Mm-hmm. Euh, foofu la ca euh, Dubaay. Mm-hmm. benn nag bi ca am mooy ñi nga xam dañ ko doon soxla ca nekk Dubaay Dubaay mënuñoo déplacé wu. dinañ ko fa mën a am ba fii ak ci biir weeru koor yi. bala moo ñëw si ñëw dinañ leen dinañ ko man a jot foofu le ca Dubaay numéro yi nag du changé. numéro WhatsApp bi mën ngeen ko faa jot foofu ca Dubaay. yaa ngi ko yow mii voilà kon mi ngi noonu suba ak jàmm bu ànd ak dogal borom bi rek dina ci ñëw léegi moom sëriñ Abdoul Aziz jaw euh, émission yi ne suñ kanam it fa lañ koy defee ak moom bu ko defee dinañ leen jox. Euh, fa mu nekk exact mm-hmm. nan ngay def ba jot ko nan ngay def ba mën a jëflanteek moom ak la nga xam ne yow boo demee da nga ko fa fekk mm-hmm. Baye Assane loolu daal mooy programme bi nga xam ni incha allah fii ak suba ñu ànd ak moom dem aéroport gunge bu baax ndax xam nga ne suñu mbokk yi nekk Dubaay chaque jour dañuy woote di sonn ak di dugg ak a génn mm-hmm. sëñ bi dana ñëw fekk leen fa ñu nekk gisante ak ñoom jàppale leen bu baax a baax a baax incha allah rabbi doog a ñibbisiwaat waaye nag buñ ku dégg ni ñëw na daal yebo nga xam naa ne man na faa bañ a yàgg ah, mën naa dem sax naa man kay umra gi sax lu tax mu yàgg fa mooy daa xam ne loolu loolu umra gi xam nga umra gi ay sart la ay ponk yu war a mat la waaye su doon loolu da ngay xëy rek gisaat ko fi kon sëriñ bi mu mel ni suba ak jàmm ci nga fas yéenee dem waaw alhamdulilah kon suba si samedi bi am naa képp koo xamante ni doomi sénégalais gi bu daan jëflante ak sëñ Abdou Aziz Diaw mm-hmm. mën ngaa ñoo jokkoo ak foofu si Dubaay mm-hmm. waaye ba tey WhatsApp bi du sensé mm-hmm. numéro téléphone yi mi ngi xam ne soxla nga loo xamante ne mi ngi si biir kër gi hmm. bu àggee njaboot bi dañ la taxaw doxal dox ak yow kem ni ñu ko daan doxalee ak yow hmm. waaye bu dee mi dul liggéey li ak listixaar bi ak jëflante ak doomu aadama yi hmm. du sensé xam nga weeru koor dafa nekk weeru yërmande te nekk weeru jaamukati yàlla yi mag ñu si bëri dañ daan laxas si weeru koor ñuy dem tafsir alquran ñuy dem pour naafila dëkk ba dëkk ñuy dem defi nangam ak nangam yitte jooju si lañ nekk chaque weeru koor dañ bëgg déplacé wu dem foo xamante ne dañ fa mën a taxaw am fa temps pour mën a jaamu suñu borom jëflante ak doomu aadama yi jë nga soy bu maanaam dafa am lu dàq alal Mm-hmm. mooy jëflante ak nit mu wala ne la alhamdulilahi rabbil alamina mm-hmm. bu moo dàq milliard dëgg la ñun nag si la ñaan yàlla teg ñu si loolu moo tax euh, tey di xaw bëri déplacement di am mm-hmm. waaye nit ku ne bu sa ñoon doo sori sa njaboot fi ngay toog de uuf sa njaboot li nga bëgg yàlla defal la ko waaye léegoo léegi dañ naan suuf soo moo sa mooy yàlla loo fa ñaan yàlla defal la tawfiix yàlla defal la ko moo tax mag ñi léegoo léegi bu ñu amee Mm-hmm. dem dëkk boo xam ne leer na seen tànk mosu faa tegu mm-hmm. ñu dem jaamu seen borom li ñu bëgg yàlla defal leen ko insha allahu taala loolu mooy mission bi waaye yàggal naa daal suba si samedi bi moom mm-hmm. képp kuy jot sëñ Abdou Aziz Diaw da ko jot foofu si Dubaay waaye doo ko jot fii si Sénégal insha allah macha allah jërëjëf euh, sëriñ Abdou Aziz kon mi ngi noonu Assane tey nag li ñu bëgg a waxtaane mooy miftaaxul kabir euh, daañu ko waxtaane waxtaane ci kattan ak lavage bu doy xam ne mi ngi këram en même temps du jafe yóbbaale nañ ko fexee wax mu yóbbaale ko mm-hmm. ndax kattan gaa ngi tukkal àdduna de mm-hmm. kattan ah? waaw te kattan gaa ngi tukkal àdduna bu ko defee tey ñu jël nag moom lañ bëgg a waxtaanee mm-hmm. balaa loolu listixaar ñu doore ko ak bàyyi ñu mu doog a kon waaw sëriñ Abdou listixaar euh, yaa nga ca nanga ko doon waaw xam say ah, mbir xam xam say mbir xam say mbir xam sa sarax raw say maas li tax sallallahu alayhi wa lépp lu mu tudd rek lu am important si dund doomu aadama la mm-hmm. te yonent sallallahu alayhi wa jàngale na salaatul istixaara julli mm-hmm. boo xam ne boo amee soxla sa digganteeg sa borom mm-hmm. tànnloo sa borom la lii may dugg am na njariñ wala amul njariñ jeexantal bi baax na wala baaxut mujj gi baax na wala baaxut lu am solo la moo tax gis nga talax talaxi daanu si kàmbu rek nga selmaxa buy dox te amut ku ko ommat na jéetal aw yaram laa làmbu xam ma ne fu mën a teg si tànk maanaam eh, silmaxa buy dox amut yat amut ku ko amat daanu rek hmm. waaye nag bu amee yet yet bi muy jiital ci kanamam moom moo koy leeralal yoon hmm. comme que yet boobu rek mën naa génn silmaxa kon baati naka la mën a def ak doomu aadama hmm. maanaam silmaxa buy dox bu amut ku ko omat léegoo la nga gis yet bi muy muy mu jiital yel bi yet bi di ko làmb si kanam bu dajee pax dana xam ne lii pax la bu dajee nangam dana xam ne lii lu mu war a moytu la wala lu mu war a moytu yet bu amul ruuxu mooy gindi silmaxa doomu aadama bu am baati ngeen xanaa mën naa gindi ku ne moo tax na nit ñi uti xam-xam pour yàlla dafa leen tawfiix bitim réew deux personnes sa tur sa tur yaay année bi nga judd lu ñu yàlla xamal si yow ñu wax la bu dee si biir réew mi nga nekk oo ma téléphone insha allahu taala bu ñu amee temps fii nangam minute ñu wax la wax la li ngay dund yàlla defal la tawfiix sooy bu nit kuy dund war ngaa xam sa sarax dëgg la nit ku dund war nga si saraxe nit ku dund yaa war nga di am tawfiix maanaam nit koo xamante ne yaa ngi si xëcc tiraanga nga dem si sëriñ mu lay digal ay saraxu yàpp utal juróom-ñaari kilo yàpp di ko wërale sa juróom-ñaari bopp juróom-ñaari yoon am na sarax yoo xam ne day gàllankoor doomu aadama moo tax léegoo léegi nit sarax dana ko tëj waaye léegoo léegi nit sarax dana ko tëj mhm. moo tax képp kuy dund war nga farlu pour xam sa sarax mhm. pour yàlla defal la tawfiix am na loo xam ne boo koy sarax rek am gàllankoor mhm. incha allah nañ ci bàyyi xel pour yàlla defal leen tawfiix ata tuurkat yi sax léegoo léegi bu ñu amee sax danaan nañ dem suñu maam yi ñóbbu leen soow wala ñu yóbbu leen gàtt wala ñu yóbbu leen nàngam ak nàngam ñoom fexe nañ ba xam seen maam lu mu soxla kon yow baat yow muy jëfandikoo si baat yow mi ngi jëfalante ak doomu aadama yi war ngaa xam biddiw doomu aadama yi xam seen mbir lan lay laaj pour nga wax leen ko yàlla defal leen ci tawfiix incha allahu taala yonent bi rek lu baax la. macha allah sidna Muhammad dafa fonkoon sarax. macha allah macha allah. jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw di fàttali ni ci kanam tuuti bu ñu demee ba ca njeextal waxtaan waa dinañ waxtaan ci mbiru Ousmane Sonko yi nga mm. xam ni àdduna bi yëpp moom la ñuy waxtaanee ak président i Sall te moom mii. Mm. Euh, depuis ba mbir kii ba léegi benn kàddu la am. mooy président daal li ma koy ñaan. Mm. na jéggale. na bàyyi incha allah loolu lépp dinañ ci ñëw ak it Ousmane mi wax naan yaakaar tasagul ndax ba léegi daal Assane dinañ ci ñëw incha allah. aja ba ci topp kon léegi yaa ngi fi am nañ fi miftaaxul euh, kabir mm-hmm. am nañ kàttan ak lavage mm-hmm. ak nag wi ñu a kabir kabir ah, miftaaxul kabir waaw léegi loolu lañ si bëgg indi waaw sëñ bi bomb bomb gu mag la bomb bomb ah midd nga wax wala mif mid fa mid faawul kabir ah mid mid faawul kabir mid faaw ah, pour man sax miftaax nga waaw loolu bomb la goo xamante ni sooy bu mm-hmm. góor yàlla yi ñenn si góor yàlla yi yàlla ñoonu la ko jagleel moom lañ tuddee sirru yu sama midfaul kabir hmm. li dafin kulli sarri hmm. mooy protection boo xamante ne bépp xay hmm. boo xam ne day jógee si doomu aadama wala mu jógee si jinne wala ngelaw wala lu ko mën a nuru boo ko jëfandikoo yàlla defal la si tawfiix moo tax ci soy bu dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko fonkoon mooy làmmiñ ak bët si daa maa yi da nga dégg si terrain bi naa fammin waxay niin waxii niin wa soyaati nii mucc loolu si boppam si ayu ayu gémmiñ ak bët ak xayu seytaane mhm. kon mag ñi lépp lu mus lu muslu rek loolu lu mën a lu mat a muslu la mhm. moo tax cat dana dopp doomu aadama ba jiital ko si biir bàmmeelam sooy bu mhm. kaaraanga gi góor yàlla yi wax nañ la mooy tudd midfaul kabir les dafin kulli sarrin njiiñ protection bépp ay boo xamante ne war naa jëm sa kaw wa suu in wala lu ñaaw wa balaayin ak nattu wa kaydin ak pexe fu la nit mën a pexe ak fa pexe bi mën a jógee yàlla dana ko dindi wa maradin ak feebar gàllaaj goo xam ne day feebar bépp feebar boo xamante ni du duhut loo loo loo xam ne ngelaw la ko def mhm. wala doomu aadama wala rab moo ko jëfandikoo yàlla defale si tawfiix wa sixrin wala njabeer njabeer goo xam ne dañ la ko def mu jàpp ay at boo jëfandikoo mit fam bi yàlla defal la si kéemtaan mhm. fam min wa suu in wa xay nin yépp yàlla da koy dindi yàlla dana la si musal min jinni wal insi moo xam lu bàyyi ko si nit ak jinn la mhm. sooy bu secret bi lu muy ànd ak mooy renu daqaar ak renu ngeer ak suufu seleb yoon ak tuuti xorom sele yoon mooy fu ay yoon daje fu ay cël daje cël saalum saalum dañ ko daan wax cël hmm. am ñoo xam ne suufu sele bi yoon lañ koy wax waaye man cël laa xamoon mooy ñaari yoon fu ñu dajee bii jëm nii bii jëm nii hmm. nga aussi suuf si noonu sooy bu amee lii hmm. euh, xam nga julli suba ñaari ràkk la secret bi nag ñaari faatee kese la benn faatee bi nag danaa ko leeral beneen faatee bi duñ ko wax si émission bi sooy bu boo déggee li ñuy bind si secret bi nga xam ne lii du gàllaaju ndaw képp ku ko jëfandikoo juróom-ñaari fan sa dund mhm. yàlla musal la lépp lu yàlla bind mënulaa gàllankoor mhm. donte wax na ne donte ku lay gàllankoor walu yàlla la bu ko defee day alako mhm. walaw jënnee ji lax sa moo la bëgg gàllankoor boo la gàllankooree dana alako ko xamul dara nag amul baatin bu la gàllankooree dafay dafay jógee secret bi ñaari faatee ngay bind jullit suba ñaari ràkk la faatee bu njëkk bi ginnaaw aaya bu ne yaa ngi ci dugal suratul falaxi suratul naas suratul masad suratul fiil laqad jaakum ayatu kursi ginnaaw aaya bu ne si faatee li ngay dugal mhm. muy premier ràkk su julli suba mhm. mu des ñaareelu ràkk bi duñ indi li ngay dugal mhm. léegi soxna boo amee secret bi mooy ànd ak rennu daqaar ak renu ngeer ak xorom ak suufu sere bi yoon nga sangoo ko juróom-ñaari fan yu yu teglante boo ko sangoo juróom-ñaari fan yu teglante juróom-ñetti kiloy xorom ngay saraxe soxna bu ñépp dëppoon nañ ne képp ku jëm jëfandikoo secret bi yaxraju minhu kullu suu'in wa marat bépp ñaaw ñaaw bu ñaawte bu nekkoon sa jëmm ji wala feebar wala pexe yàlla dana koy dindi mhm. wala yaqadiru ahadan an yadra min jinni wal ins ginnaaw bu nga ko defee nag si àdduna mhm. dara mënatulaa lor moo xam doomu aadama la mhm. wala muy jinne am na dolli nañ si ne euh, walaw kaana waliyan aw jinnan sirran yu sama bi mit faul kabir mu ne donte ku lay lor sax nitu yàlla la ba am cër ba jubóog suñu borom bu la jéemee gàllankoor yàlla jëlee ko la a gàllankoor yàlla jëlee la fi moo tax soin bu secret la boo xam ne boo ko jëfandikoo benn yoon mucc nga te amatul bu la neex sax amatul ngay amati kaaraange mhm. am na kaaraange yoo xam ne boo koy jëfandikoo mën ngaa mucc waaye boo paree rek ñu song la mhm. kii nag bu ko xas def juróom-ñaari fan say teglaan sa giiru dund bi yàlla musal na la lépp lu yàlla bind mënu la gàllankoor donte ku la bëgg a gàllankoor nitu yàlla bu am cër si yàlla la mënu laa gàllankoor mhm. donte jinne la mënu laa gàllankoor lii daal lañ tuddee bomb gu mag gi ku la laal jógee mooy midfaul kabir képp ku ko am yàlla defal la tawfiq àdduna ak àllaaxira ngi ànd ak rendu daqaar ak rendu ngeer ak suufu seleb yoon ak juróom ak suufu tuuti xorom nga ko juróom-ñaari fan yoo xam ne day teglante julleeg suba ñaari ràkk la secret bi ñaari ñaari faatiha la benn bi wax nañ ko waaye beneen bi ko wax sa émission képp ku ko jëfale ko yàlla defal la tawfiq mhm. insha allah jërëjëf mhm. sëriñ Abdoul Aziz Diaw ci midfaul kabir loolu waaw commencé tàkk gër-gër fay bëri na mm. te lépp ñaan ñàkk ñaan ko ko waral mm. te képp ko am ñaan yàlla dimbali la nga mucc si loolu insha allahu taala macha allah jërëjëf jërëjëf Aziz Diaw ngeen mën a jokkoo ak ñoom ma nga ci Thiès ci 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 lu ñu waxtaanee fii nag boo ko soxlaa ci euh, à partir de tey mm-hmm. incha allah yaa ngi koy fekk ca Dubaay da nga koy wat jot ci whatsapp bi ñaari numéro yëpp am na whatsapp mm-hmm. bu dee tax fii ci Sénégal moom euh, dinga woo boo ci wootee dinga am ñoo jot incha allah ñu daal lay guidé waaye san kattan ak lavage ñu doog a dem ci nag bi waaye nag xoolal ñaari boo ci jël voilà Serigne Abdou Aziz kattan bi mm-hmm. waaw alhamdulilah sooy euh, nit ñi bu njëkk boo déggee karabu kattan nag mag ko tax a jóg waaw te léegi garab général la amul mag ak xale. Mm-hmm. képp koy jëm ñëpp ñëpp ñu si ëpp sa ndaw ñi. bu ñu Assane nee na ndaw ñi mu wut a ñàkk kàttan. waaw xam nga dafa xaw a doy waar bu njëkk nee naa la. Mm-hmm. Euh, xale bu góor bu sawaan da xam ne xale bu góor saw na. benn waaye keroog dafa ma wax ne ba ñuy nekk ndongal daara. Mm. xale bu góor bu ñu yeewoo rek da nga xam ne xale yi jug nañ. waaye léegi yeewu sax fudd day mel dafa xaw a jafe xaw ma nit yi si didee baaxut xaw ma lu xew lekk gi la nañ ko lekk yi nag tuumaal nañ ko leneen waaye nag na xam ne néew néew la rek nañ fexe pour faju ko yàlla defal leen tawfiix hmm. ndax bépp jàngoro rek boo xam ne yàllaa koy teg doomu aadama rek am na lu taxaw pour pour faj ko hmm. ba mu des benn jàngoro benn boobu rek moo amul médecin mooy dee hmm. waaw feebaru dee moom amul médecin waaw insha allahu taala sooy bu garab gi day faj garabu kàttan gi képp ku koy jël insha allahu taala dana dem ba gën néew garabu say dootoo ko jëfati insha allahu taala mooy garab gi kaasu ataay nga koy xelli naan bu dee amoo dara lekkal ba suur nag jëfandikoo ko benn yoon boo ko xasee jël deuxième jour bi jëlul jël ndax li nga bëgg da la koy doxaat insha allah comme ni nga ko bëggee bi awlilaay wa quwwati yi mhm. boo koy jël nag euh, yaa xam nga gëj a sëy juróomi at juróom-ñaari at ñetti at yaa xam ay weer jëfandikoo ko sëyoo boo ko jëfandikoo yàlla may la kàttan nga sëy bu dee nag da nga bëgg nag boo sëyee nag affaire bi doo gaaw a daanu mhm. am na benn secret boo xam ne da nga koy riiw sa bopp aro bi mhm. wallaahi wal quran bu ko jëfandikoo mhm. fati ba pare boo ko jigéen sa xol dana sedd li nga bëgg yàlla dana ko am sa doo gaaw a daanu te li nga bëgg si jigéen da nga ko am insha allahu taala sooy bu nee naa la mbiru kàttan mag ñi daawuñ ci fox danga gis ñu ne la secret sàngam boo ko jëfandikoo guddi gu ne boo amoon fukki jabar bu doon ne fukki jabar lew na lew na si yow mën nga ànd ak ñoom ñëpp te si am loolu métti mhm. waaye nag comme que yàlla may ñu fukki jabar ñeenti jabar la diggal séréa mhm. kon guddi gu ne mën nga ànd ak ñeenti soxna mhm. bu doon lu xel mën a nangu la waaye secret yi mag ñi dañ ko daan jëfandikoo pour gi nga soy mbiru ngóor ëpp naa fooye dëgg la ndax yonent sallallahu alayhi wasallam daf ne ëpp takk leen ay soxna mhm. pour ngeen ëppalante njaboot oh. ndax bis penc ma mën a ak samay morom yonent si xeet bu bëri te nangoo yàlla nag waxuma jur ak gétt mhm. jur goo xam ne amul benn njëriñ jàngalu leen dina tegoo leen si lislaam mhm. loolu taxut yonent sallallahu alayhi di wax moo tax képp ku amul kàttan mënoo sëy bu yàggi jox na dañu la baat moo tax képp ku am feebaru ngóor ak ku mën a doon demal faju ci mhm. insha allahu taala li bañ nag mooy bu ñu jëfandikoo garab nañ jëfandikoo xam li ñuy jëfandikoo di jëfandikoo loo xam ne médecin bu jur jàngoro la amul benn njariñ mhm. yow yaa ngi jëfandikoo garabu kàttan mu dem ba indil ay rein wala ngay jëfandikoo baaxul nit ki mhm. li muy jëfandikoo rek nag xam lan la war a jëfandikoo pour yàlla defal la tawfiq insha allahu taala garab gi képp ko jël tey Mhm. boo yeewoo joxoo ma résultat ma dellu la sa xaalis. amul benn werante incha allahu taala. maanaam daal boo ko jëlee moom da ngay jox résultat. amul benn werante heure boo reeree ba suur jël ko. Mhm. boo xëyee da nga ma jox résultat bu baax. ak bu mën a doon nag ak bu mën a doon te it sooy mhm. garab gi boo koy jël da lay faj. Mm-hmm. waaw man nag boo saxee di ko jël da nga dem ba garabu kàttan doo ko utiliser mm-hmm. loolu nag moo xaw a jafe waaye lu mën a nekk la alquran la boo ko mm-hmm. jëfandikoo yàlla defal la tawfiq mag ñi yàlla defal leen tawfiq àdduna ak àllaaxira jërëjëf ndax dafa bokk si dund bi waaw góor góor waaw ku nekkul góor rek doo góor dëgg la wallaay loolu dëgg la jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw kon ginnaaw loolu ñu dem ci la base laawaas Serigne Abdou noonu ñuy def oto yi wiidaas. waaw lu tilim rek walaw jëmmu la walaw jëmmi walaw jëmmi doomu aadama la waaw sharia boo ànd ak sa soxna dañ naa la sangul set mhm. te du leen sangu set rek lañ soxla boo jëleen jàmpe saabu sangu fa set dugg si géej gi def nga li nga bëgg da nga set ah. wecc ah. waaye taxul nga mën a julli mhm. am na lu tilim si yow ba tey moo tax sangu set mu nekkee ni mu nekkee farata si doomu aadama laafas jëmu nit dina la nekkee doomu aadama doomu aadama yëpp ay organe la da nga gis oto boobu organe am amee oto bi paan mhm. nit nag boo demee ba say organe am problème da nga am paan moo tax hémorroïde da leen ko téye am na ñoo xam ne am na problème mu sëy euh, ndoxu cité leen téye am na ñoo xam ne am nañ problème mu sëy ballottement bu yàgg moo leen tee yii yëpp day xettali dooma day day tere nekk góor 100 pour cent bala ngaa dem di faju garab kàttan demal jëfandikoo lii nga faj lii ba mu wér nga door a jëfandikoo garabu kàttan yàlla defal la tawfiix waaye fii ak yaa ngi jël garabu kàttan da feebar yi nekk si yow wallaay du wér mhm. da ngay sax di jël garabu kàttan ba suul la si biir suuf nga door a bàyyi garab waaye yéeg mhm. mhm. yow xam nga ne sa jàngoor émorite la nga dem di naan garabu kattan jëlu ko demal faj émorite insha allahu taala yàlla mën na defal tawfiq yow xam nga ne sa jàngoor siti la demal faj siti yàlla defal la tawfiq yow xam nga ne sa jàngoor ballottement la mhm. demal faj ballottement yàlla defal la tawfiq yow xam nga ne sa jàngoor da ngay lekk te du rees demal faj loolu pour yàlla defal la tawfiq da ngay gis nit ne la juróomi fan du ma dem toilette sa danger nit féeg yaa ngi xëy di lekk di ndekk di añ di reer demal toilette yoon wala ñaari waaye xëy na am na ñoo xam ne dañ la ñetti fan du ma dem toilette. Hmm. loolu chaque dafa garaaw loolu dafa hmm. garaaw moo tax euh, lavage bi képp ku ko jël insha hmm. allahu taala yàlla defal la tawfiq dootoo seereeti li nga bëgg dana am yàlla defal la tawfiq si wér gu yaram nag tey nekkul garabu sunguf goo xam ne day gàllankoor doomu aadama sooy bu mag ñu xam turu yàlla dëgg am na si mag ñoo xam ne duñu naan ndox mu juun ndox muñu naan ak saafara la moo tax nit ñi dañu amoon di te ndaw ñi dañuy font rek mhm. dañuy ñu topp boisson yi topp yu neex yu sedd yi mhm. duñu wér dañuy sax di faju rek amul benn njëriñ la wala ndoxu siti wala ballottement wala seere yàlla defal la tawfiix mhm. incha allah jigéen ju régalo normal sax bu koy jël yàlla defal ah. la te sell allah mi ngi noonu kon sëriñ Abdoul Aziz Diaw la àndal ma nga ca képp koo xamante soxla nga ko boo ma vocal mën nga koo jëlee kër ga même garabu kàttan nga ku ko soxla uh-huh. njaboot gi mën ngaa jëflanteek ñoom waaye bu ñu fi nekkoon tamit dix heures lañ soxla uh-huh. ba dix-sept heures uh-huh. ku ñëwut heure boobu duñ la recevoir waaw xam nga bu dee foofa lañ soxla euh, sooy araab yi tubaab yi wala arabi saudi wala déedéet Dubaï euh, dafa am loo xam ne ñoom dañ koy interdit maanaam di dem di yóbbu ay secret xaatim ay xawaatim ak yooyu dañ mm-hmm. lay rëfale mm-hmm. moo tax ñu xam dëgg bu ñuy dem tubaay seen secret dañ koy jël foto ko seen téléphone ba yàgg a génne ko mm-hmm. moo tax yu bëri ah, comme nga tiire ko foofu waaw waa gi nga tiire ko foofu comme que réewu jàmbur dañ ne lii dañ koy bañ boo ko defee rek yaa leen tooñ moo tax moytu daf si jaamu yàlla la bokk insha allahu taala bokk na si réew yu gën a bañ ay xaatim Mhm. ñoom Dubaay gi mhm. seen aéroport bi heure boo fay jàllalee pour mbiru ay xaate bag yu ko nuru mën nañ la rëfale mhm. delloo si la moo tax jar na musu mbokki sëriñ si nga xam ne ñi ngi bëgg a dem si réew yooyu nañ bàyyi xel yooyu ñu am secret bi dëgg dañu jël secret yi def ko seen téléphone bu ñàggal nga génne ko li nga bëgg nga def da yàlla defal la si tawfiq ak taysir d'accord incha allah jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw kon ginnaaw loolu tey nag li nga xam ne moom lañ ciy teg bëgg koo waxtaane ginnaaw lu lii lépp nag euh, sëñ Fallou dina ma ko wan léegi balaa ñu ci dugg sëñ Abdoul Aziz Diaw muy ab nag nag bii daal maanaam du jëmmi nag bi waaye nag ci boppam tey lañ. waaw waaw di waxtaan Assane Assane loolu da ngay def appel vidéo. xam nga Assane day def ay appel vidéo seen. waaye gàll la am. maa ah? <laughs> maa ngi ma àndoon ma bëgg a jaay sama bakkan bi. <laughs> yéen ñaar ma xam loolu léemu léemu naa ko. <laughs> mooy bi muy dawal di def appel vidéo. bilaay loolu garaaw risque la. te yab na loolu bu doon mën a. Ah? dama naan ko droitel ndànk te jox ma oto bi. man kay damaa xamul ku yor wàllu transport. waaw waaye bu xamoon numéro am da ko war a nangu téléphone am. interdit ko téléphone. waaw waaw maanaam muy dawal def appel vidéo. risque dëgg si la ne. boobu nag ko waroon ne ko nag droitel mu droite ngeen ko indi oto bi. mooy ko xam li may def rek. kenn mësul gis lu mel noonu. aywa kon nag bi de nag bi sëñ Fallou andi woon nag. nag loo ñu loo ñu ci bëgg a jàngal. xam nga sooy bu. suratul baqara mm-hmm. yàlla dafa tudd nag. Mm-hmm. banu Israël ba mu an bañ amee problème. Euh, innaha baqaratun safra la faaridun wala bikurun xawaanun bayna dalika fafaalu ma tumaroon mm-hmm. maanaam xeetu nag boobu yàlla indi leen ba indi leen nag bu zone ak la sa xewoon li ma si bëgg a wax sooy bu Euh, nagu sébré si nagu daj nga am sébré nagu daj am na benn secret bu si mag ñi liggéey si war mursalaati ne nañ képp ku koy jëfandikoo nit liggéey la dana toppi kañ doon dajale hmm. amul benn werante maanaam këñ rayal nagu daj nga wut sébré si nagu daj am na benn secret buy ànd ak wal mursalaati nga bind ko ko képp ku lay gàllankoor dana tokki ku kuñ nag bi dana ko toppi ñaareel bi mag ñi dañ ci liggéey benn secret Euh, béjjënu nag bu jigéen euh, astaxfirullah béjjënu nag bu góor nga bind suratul baqara sol ko si béjjënu ndeyjoor bi takk ko sa buntu kër kër ga day dund day naat day am kaaraa kaaraange te yàqu dafa dugg képp nagu nag nag bu soxor bu bëggee ndol moroom nu muy jële béjjën bu tee ko moroom ki képp ku la bëgg gàllankoor noonu lay jëfandikoo sooy bu nit dalee au téléphone ne la mënu mënu am dara xam nga léegoo leen da nga gis nag yoo xam ne dañuy seen biir yi day daw ñuy dox di cabinet nga xam ne cabinet bi day day waaw day wàcc du dajalo benn benn day tas day tasaaroo heure boo tëjoo bind ka xasfin maakul boole ko kabinaay wu caawr yooyu nag boo xam ne biir bi day daw sooy bi boo ko sangoo balaa bis bi del si nga ubbeeku sooy bi lii may wax alquranil karim la te mu nekk lu ma testa jëfandikoo ko jëfandikoo ko pour yàlla defal ñu si tawfiix bu dee koo xam ne danaa la biir bi day daw euh, dafa mënta am dara mbiram dafa yàqu biram dafa tëju hmm. da bind ka xasfin maakul sans ongos ak benn xaatim bu ndaw nga boole ko nag boo xam ne day biir bi day daw mm-hmm. nga ut cabinet bi boole ko ak moom sangoo ko xam nga cabinet nag nekku sobe boo ko jëfandikoo rek yàlla defal la tawfiix nga am ubbeeku goo xam ne nit mosu koo gis mm-hmm. muy benn muy benn si mbiru nag mm-hmm. boo amee wextanu nag bu ñuul wextanu nag bu ñuul nag bu ñuul bu ñu rey nga ut wextan bi ñëpp dëppoo nañ ne boo bëggee mucc sa làmmiñ da koy jël nga ko sa làmmiñ raxas sa loxo ay say tànk mënoo dëgg liggéey te mënoo nuyu ku lay gàllankoor am na benn secret boo koy bolantee nga sangoo ko si kaw garab sa kaw garab ngay yëg sangoo saafara bi képp ku lay liggéey sa suufu tànk nga la jëm maanaam foo bis penc foo tisee moom yaa koy dimbale du la faree kaw mukk te doomu aadama sax noonu feeg yaa koy dimbale du la mën a gàllankoor sooy bu li yépp dañ koy wax pour yàlla defal ñu tawfiix bu dee nag da bëgg dottu jigéen am jigéen teeku sa kër waqu nag waqu nag bu nday jor bu jigéen ngay jël am na secret boo si jël nga liggéey nga suul ko sa moo tax sooy bu nit ñi nañ uti ñaan pour yàlla defal ñu tawfiq képp ku bëgg yàlla defar sa àdduna ak alaxira am na nag di nga junk jegeñu nag bee junkuñ bële sa kanam sa kaw am na benn secret boo xam ne dañ koy liggéey boole ko tegu gëlëm mm-hmm. boo boo jëfee ni ko yàlla defal la tawfiq famille ba nga nekk yaay seen kuy yaay seen nag yaay seen yëkkatiku yàlla defal la tawfiq dana la yëkk dana dañ la seen da nga yëkkatiku da nga am xabul da am bayra da nga am teraanga da am kaaraange mm-hmm. lii daal képp ku ko jëfandikoo ku ne yàlla defal la tawfiq mm-hmm. bi ma si gën a yitteel mooy koo xam ne daf nga tëju nga wut biiru nag buy daw nga wut cabine yi nga bindee ko xasfin maakul 111 ak xaatib bi mu ànd ak nga sangoo ko balaa bis bee dellusi yàlla ubbi say buntu amul benn werante yàlla defal la tawfiq xat xatu ubbeeku bam jeex na si yow incha allah mhm. euh, dalal loolu waaw sëñ Fall man maa ko kii yoon wax nga dëgg jërëjëf euh, sëriñ Abdul Aziz Diaw mhm. ginnaaw lii lépp nag Assane ku soxla lii lépp da nga koy woo soo ko woowee ci whatsapp bi wax nañu leen ko bu ñibbisiwaatee dinañu mhm. leen wax ne leen ñëw na mhm. mais bu dee kii wootee ki ko soxla appel normal doo ko jot mhm. di nga jot kam bàyyi ci kër gi Thiès su dee nag da nga ko soxla moom en personne ci whatsapp bi ngay wootee fa mu nekk ca Dubaay incha allah dina la jot incha allah Assane lii xew ci réew mi yëpp nag Serigne Abdoul Aziz Diaw mii da dafa yàgg a wax ni Macky daal lu mën a xew na am na jëfandikoo baatu yërmande mhm. ci ñi mu jiite mhm. ñoom Ousmane Sonko ak ñi mu jàpp yàlla dogal na nag moom ànd du ànd gi ñu ànd mais mos sa tiitaroo dara mhm. lépp lu mu waxit bu ñu demee ba jamono firikoot day jàpp ni daal daf comme doomu aadama bëggoon lii am la rek tey nag loolu yi agsi nañ ci Ousmane Sonko président Macky Sall ak ñi mu àndal amnistie nañ leen. Mm-hmm. dugal nañ projet de loi bi. Mm-hmm. daf mel ni yegg nañ ci loolu yi. nga mm-hmm. xam ni moom la président Macky Sall wax. mi ngi noonu sëñ Abdou Aziz Diaw say kàddu doonoon nañ ñaan yàlla say kàddu yi doonoon yaakaar tësagut. say kàddu doonoon nañu waxtaan. waaw te loolu yi nga daan wax muy ñett yooyu. si lañ toll nii. moo mooy defar réew. njéggale. ak diisoo. ak euh, yërmande. président bu ko amul doo nit. noonu noonu noonu sa askan nga moo tax kam ke léeg-léeg desee sa ay gi bëriwul hmm. mën nga koo jéem gën a rafetal hmm. am na solo maanaam duñu wax ne réew mi am na jàmm ba tey jàmm gi doygut hmm. nañ ko gën a yaatal jàmm ji gën a am sooy bu Macky yàlla jëral na ko defal na ko lu ne na gër gër gër gër jërmande képp koo xamante ne mi ngi ko doon téye mu mu téye ko téyewoon na ko ngir politique ak ku mën a doon na ko bax te yàlla tax gën a indi jàmm si réew mi Zeynal Habidin dafa amoon benn jàmm mu am satalaak weñ di ko jox muy jàpp hmm. di jox bu sangam bi muy jàpp sang satala daanu si tànk bi wala mu daanu si bopp bi xaañ ko ba dara ji génn hmm. en tant que sa buur jaam bi gaañ ko mu hmm. mer mu mer lool waaye waa ji dafa dégg jaam bi dafa dégg yàlla jaam bi ne ko wal kaasiminal xaysa yàlla bëgg na ñi nga xam ne bu ñu meree dañuy wan na seen mer bi sang bi ne ko kasamtu xaysi mer mi nëbbu naa ko wal kaasimiina xays wal xaafiina xanan naas mu ne ko yàlla bëgg na ñu jàmmal nit ñi mooy ñu leen di jéggal mu ne jéggal naa la mu ne ko wallaahu yuhibbul muxsiniin yàlla bëgg na ñuy rafetal mu ne ko goreel naa la xoola benn aay bi ñetti makaarim axlaa yu waaje sang bi ak jàmbi dajale moo tax sooy Macky Sall donte jàpp na euh, jàpp na Ousmane Sonko wala jàpp yenn ndaw ñi ñu ne politique a taxoon mu jàpp leen am na ñoo xam ne bu ko buñ ko bu leen bàyyee sax danañ am lu leen métti hmm. na jéggal ñëpp te yàlla tax sëñ bi Sénégal li rek la ñuy xaar jàmm ak salaam tàllal loxo jàmm jëmale ko si askanu Sénégal pour mm. a def mm-hmm. na gën a Sénégal jëm kanam insha allahu mm. ne kii lañ jox seen xob a lijjante nañ si mm-hmm. ne bokkoon mm-hmm. te kii du Seydina Ousmane te dimu mooy tey am nañ si yaakaar bu yàlla dafa ñu tawfiq moo tax képp koo xam ne day wax ne Macky Sall bu mu jéggale kooku noonu hmm. na képp koo xam ne ñu mi ngi si na bàyyi ñëpp tabarkàlla képp koo xam si kose gi nañ la bàyyi nga dellu si kër Sénégal jëm jàmm jëm kanam incha allah aywa jërëjëf kon Assane lii daal la indi woon looy tàggoo ba ajjuma ak jàmm ajjuma nag xam naa sëñ ba fa mu nekk ca Dubaay nag lañ koy fexe def Vimix Call. Mhm. Vimix Call moog Astou Sakho bëgg naa ma seeti ko Astou Sakho. nga fa. waaw <laughs> ah, bu dee bu dee yàlla dogal na nga takk ko si digg bi diggante bi danaa ko seeti <laughs> waaw bu dee nangu na sëy bi xam nga sëy téléphone Ahmed Khalifa nee na dagal na. Ah, man kay damay ragal ah. Astou Sakho dem fa. Mm. daal di tëj sama gémmiñ ak saa njóogu ci yow maanaam mu noobloo ma la. ah bu dee sëy bi dagal na daal incha allah mën nañu ko seeti. waaw day fekk ñu mën ay na bu dee daw nga res moom <laughs> nañu dégg ci téléphone rek. <laughs> aywa kon yàlla ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko ñaanal yoonu jàmm ak salaam yoon wi neex lool ci dem bi mm. waaye bu fa demee lépp loo xamante ni yaakaar la fa sa nit ñi am ko ci moom yal na yàlla mottali yaakaar ji mu ñëwaat yoon wi neexaat lool mu dem ci jàmm ñëw ci jàmm mm. tabarkalla mm. jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw kon looy tàggoo sooy bu gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla defal leen tawfiix bu lekkee ëram na ko gërëmee cooy ñu ngi ñu ngi leen di bu baax ci taxawaay ak fànn yépp di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq man lam yaskuru naasa laa yaskuru laa ko sant nit du sant borom ñu amaa bi nehmat rabbika fa hadis ñu ngi leen sant si xéwal gi nga yàlla jaaral ne ko si yéen jëmale ko si ñun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu gërëm sëriñ Fàllu Gumbala tey moo nekkoon ci xarala gi doon euh, assuré li nga xam ne mooy technique bi ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant gërëm moo Modou Diouf mi jiite euh, lu jëm ci wàllu régie bi ab Abdou Tobak Ablaye Diallo gërëm alaaji Sanjoogu Mbeng mi kilifa gi ñaan yàlla koor gi ñu jëm yàlla nañ ci yegg ak jàmm incha allah dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm bu àndee ak dogalu bi borom bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.